dañu ñëw pour inaugurer li ñuy wax maison de la femme donc euh, inauguration bi euh, dafa am lu ko jiitu parce que 2006 ba léegi bi nga xam ne ñi ngi euh, defar di tabax Cité Fort B femmes yi dañu teel a am gis-gis dañoo teel a gis ne que ci morcellement yi ñoom il faut que ñu am loo xamante ne euh, war nañ fa mën a def maison de la femme li may faral di seede mooy madam Faye mi ba ma ko ràññee ba léegi moom benn projet la daan wax toujours maison de la femme maison de la femme moo tax bu femme forbe yi jël ne kër gi dañ koy tuddee kër Anna dafay dafay firndeel rek engagement bi nga xam ne am na ko ci mais nag aussi ñun ci wàllu liggéey au sein de la municipalité suñu liggéey dañ koy tënk ci ay procédures te mun naa ne procédures yi mu jaar yëpp dafa si ba fii bi ñuy dem débat d'orientation budgétaire bañ ko waree inscrire sur le budget euh, bien que femmes yi amoon nañ volonté la délégué de quartier ba mu ñuy bind ba ñuy dem budget dafa ñu ne lii dafa bokk ci priorité li nga xam ne forbe jigéen ñi bëgg nañ ko donc ñu ànd ceex ñoom ñu jébbal ko conseil municipal te conseil municipal nag arbitrage la parce que li ñu bëgg a def yëpp xajul ci budget mais ñu jàpp ne que lii dafa bokkoon ci priorité priorité yi donc looloo waral tey ñu ñëw fi di inaugurer projet boo xamante ne du batiment rek jigéen ñi dañ ca am gis-gis bu bare te ku xool jamono ji tey nu mu bindoo donc tey rek dafay bés spécial le muy journée internationale bi nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi. ñi nga xam ne en tout cas dañuy connaître des violences. dañu bëgg a créer les conditions pour les rendre autonomes maanaam ñu mën di développer seen activité économique am seeni ay këyit ba lépp loo xamante ne lu ñu produire fii la ñoom ñoo koy produire dem uti seen këyit yoo xamante ne fépp foo dugg ci biir Sénégal Afrique nga gis produit yoo xamante ne ñi ngi ko fay jaay. souvent nit ñi du ñu mën a imaginer ne da ngay dem supermarché léeg-léeg nga dem di jënd ay céréales. lu mel ni en tout cas euh, sànqal maïs ak yeneen ak yeneen ak euh, jus euh, des produits transformés saabu mais ci communauté femmes yu mel nii la et encore que ñoom malheureusement amuñu batiment bi mais yàlla dafa def ñi am nañu batiment ba pare ce qui veut dire que ëllëg suñu objectif mooy du am benn intermédiaire ci transaction yi ñoom ñooy produir am seen këyit am seen organisation am service commercial boo xamante ne ñoom ñoo koy distribuer de sorte que fépp foo bëgg a dem ci Sénégal nga gis ne que ñoom ñi ngi produire ñi ngi jaay donc loolu mooy li ñuy wax autonomisation économique de la femme parce que li ñu bëgg mooy koom bi ñoom ñu mën ci gis seen bopp ba pare mën ko téye seen loxo donc loolu mooy li nga xam ne moo doon ambition conseil municipal bi ma ciy remercier en tout cas ni nga xam ne noonu nañ ci liggéeyee d'abord toute l'association des femmes de la cité Orbe di remercier également le délégué de quartier jërëjëf di remercier kilifa yi nga xam ne yàgg nañu am ay jotaay di waxtaan ci lu bare mais encore une fois di sant gërëm man le conseil municipal parce que bu doon man kese je n'ai pas en tout cas la capacité moi seul à le faire mais bi ñu toogee conseil municipal ñu présenter leen projet bi ñoom dañ ko voté à l'unanimité donc c'est encore une fois pour vous dire que acte bu ñu posé la boo xamante ne dafay méngoo ak la nga xam ne lu askan wi di xaar la parce que ñoom ñoo ko ñoo ñu ne lii lañ bëgg donc ñu fexe ba réaliser donc di leen sotti gërëm